yàlla yàlla nangu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa techniciens yi di ñuy ñi ma toogal fii grand place bi euh, di leen ziyaare. entraînement individuel parce que ak confinement bi nii bon comme que dajaloo bi mënatul nekk ak ndax pandémie bi moo tax xale yu mbëri dañuy def entraînement individuel ñu ngi entraîné commencé nañu hivernal yi sax. di am yaakaar ne xëy na fii ak octobre affaire yi dana changé pour que ñu mën a dajaloo liggéey. Hmm. oui dañ ci am yaakaar quoi ah waaw fi ñu toll nii nag dégguñu dara quoi ñu ngi dégg ay affiches yu mag di taxaw mais bu dee écrit bi moom noonu no am na ñu fa waroon bëre nag confinement bi tax ba am bëriwuñu ku ci mel ne jegaan bon Mor Yékini aussi mi ngi am yaakaar mais dara sotteegul daal waaw. dara sotteegul laadum aussi mi ngi am yaakaar mais dara sotteegul ñoom rawaan ñoom it ñi ngi am yaakaar waaw ak vieux top waaw loolu ak làmb ñoo ànd dina toll période boo xam ne ni écrit bi day wàcc mais loolu yëpp li ñu naan reculer pour pour mieux sauter day tax ñu gën a defarwaat parce que déjà day tax xale yi xam lañ ja lañ daan def bi ñuy am victoire lañ daan def ñu gën ko def loolu la ko waaw waaw non xam nga saison ren bi boo seetee cadre équipe bi bëri wuñu bon xale yu bëri dañ nekk xale yoo xam dañ nekk en formation xëy na peut-être trois yoo xam ne ci cadre yi lañ bokk ñoom ñoo perte seen combat moo gën a suuxal suuxal équipe bi quoi mais ba tey loolu yëpp liggéey la rek dina tax aussi ñoom ñu am mu servir leen leçon ba nga xam ne ni dañ gën a mën a préparer waa saison bi parce que aussi nit ñi dañuy comparer euh, entraînement ak préparer combat boo jëlee avance te nga am entraînement foofu aussi day metti te mën naa am balaa ngay am lépp fekk booba sa jour combat jot donc loolu dina permettre xale yi gën a liggéey daal waaw. ah bien sûr ma lu ñu jël mais bëgg naa daal li ñu am li ñu amoon ñu amaat ko fi ñu toogoon ñu taxawaat fa ko waaw. mu ne. bon loolu na amaguma ci lu ma leer quoi parce que xam nga rek dafa tombeek aussi saison bi tëj bon saison na bu tëjee kenn ku ne da ngay nekk say activité man nag dinaa fi nekk di soññu xale yi pour ñu préparer ak yooyu mais pour ay combat bu taxaw ak yooyu nekkugul ci loo xam ne maa ngi koy xam quoi amaguma ci renseignement daal mais yëg naa ne léegi yooyu lig na ko laa fi ñu toll nii euh, libre am na liberté daal mhm. waaw maa ngi suivre gars yi sama sunu mbokk yi maa ngi leen ziyaare ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp maa ngi leen ziyaare gis naa ko waaw. waaw. bon c'est-à-dire euh, nit ku nekk ka nga faral ki nga àndal seere ci moom day yomb donc euh, c'est normal loolu mu wax moom la war a wax mënut a wax leneen lu ëpp loolu waaw. ak gaayen bi gaayen bi gaayen bi waaw gaayen bi waaw. waaw mooy li ma la wax rek ki nga faral moom seede ci moom mooy gën a yomb. parce que yaay nekk ak moom xëy na li muy liggéey mooy gën daal sa xel waaye nag ñun moom du ñu sous-estimer adversaire jamais du ñu sous-estimer adversaire bon toujours dañuy liggéey lu war a mën a daan adversaire comme li ma la wax rek mbër Rock Énergie yi ñu ngi hivernal di nga ñu ngi heure bi ñoom ñëpp dañuy dem na ji di liggéey kenn ngi ni sama ginnaaw muy guy gi yaakaar naa ne comme li ma ko waxee sànq rek waaw. Rock Energie kii bëri na sept kii mooy kii mooy kii mooy Dame Suguer numéro 2 Dame Suguer numéro 2 ngi nii waaw. waaw ñu ngi si laa bëri sept combat sept waaw am naa victoire. waaw waaw. non instant bii amaguma combat nag non non man man na man moom maa nga bàyyi suma staff rek ah. non non man xale laa rek di bëri taamuma kenn wax dëgg yàlla kuñ ma boole rek. taamuñu. bon l' mooy mi ngi liggéey xale la dafa toll ci jàng kuñ ko jox daal koo xam ne adversaire de taille la ñu jox ko mu bëri mais du taamu quoi du sa. waaw non xam nga loolu actuellement ne làmb moo ko laajatul da ngay toog ba ba ba promoteur ñëw nommé la ne sa combat ak diw laa bëgg sa encadrement xool bu fekkee ne adversaire la boo xam ne ni war ngeen a bëri làmb boole na leen mais ngeen bëri loolu moo xew ci làmb quoi mais koo koo taamu tey danaan daf maa liggéey ba pare xam nga mystique bi dafa bokk dafa am wàll ci combat yi ñu ne maa liggéey ba jekku ma soog maa laaj patati patata mais bu promoteur bi doxee combat nag bu ko defee ñaari adversaire bi ñooy koy yëgandoo mu sotteeg jàmm naa la libéré da ah. ok waaw foo jëm ni ok waaw. comme. waaw mais bu ñu amul confiance nan la am. ah mais attends même bu la wóoree ne sa mbër wóorul wóorul mu daan wala dañ koy daan sax foog nga waxe confiance c'est très normal ñoom li ñu wax sa normal pour ñoom. c'est très normal man d'accord naa ak ñoom ah. parce que seen mbër lañ bëgg mu daan seen yéene la ñuy wax ak liñ yaakaar ci moom mais c'est normal loolu kay yaakaar naa ne fi tey jii gars yi fi toog ni tey boo ne Modou Lo Ama Baldé mën xam nga liñ lay tontu dañ naan la Modou Lo moo mën parce que ñii ñooy foo dem. Hmm? ah mais sëñ bi ne la. loolu la war a wax bu waxul loolu leneen lu wax yàq na ko. loolu la war a wax moom boo pare nga laaj ñi ba xam ñoom lu ñu lay wax ci Modou Lo kenn ku nekk ki nga faral yaa mën a loo loolu nga war a mën a wax ci moom ak confiance bu mat parce que la muy liggéey mooy dal sa xel d'accord nga la muy liggéey mooy dal sa xel ak waa ji même waa ji sax wax na <laughs> waa jooju <laughs> Jules Balde ak ménager bi waaw mooy li ma la wax mooy li ma la wax dama ne la ñoom loolu lañ mën a wax mais ñun amuñu habitude di sous-estimer adversaire xam nga lu ko waral yow leer na ne Modou Lo moo njëkk a génn Ama Baldé Modou Lo génn lu yàgg ba dégg daal Ama Baldé la nekk ci rang bi. te ay morom lañ te morom lañ kon bu ñu demee tey ji ba làmb boole leen coowal làmb boole leen Ama la mu def ba coow laam war koo mën a boole Modou Lo mais duñ ko sous-estimer dara la ñun Rock Énergie duñu sous-estimer adversaire képp kuy sous-estimer adversaire xamal ne bokkoo fi wala da fay joox ñun duñu sous-estimer adversaire parce que dañoo war a liggéey loola daan kon am nañ beneen temps bu dul di la sous-estimer xamuñu yooyu. moo ko doole. a ah, waaw di ci kanam rawuli bët. waaw loolu c'est le passé nañ xool ki ko tëggoon ngi nii. loolu c'est le passé. yaa may dëgg nañ xool li ci sunu kanam. loolu jëru werante ñoo ko tëggoon. waaw naka moom ñu ngi lay ziar zëm kan zëm waaw waaw a ah, sama rakk yi ñoom Demba Diallo waa Parcelles Assainies yëpp ñoo ko bokk tëgg ko waaw waaw waaw waaw waaw ah, ah, loo xam nga xam nga xam nga dafa am loo xam ne euh, yàggagul la 14 juillet 2006 yàggul benn beneen bi topp mooy ñi ko tëggoon ñi ngi fi ñi ko seetaanoon ñi ngi fi ñi ko bëree woon ñi ngi fi fi ñu ko bëree mi ngi fi muy statu Parcelles Assainies donc kon xam nga nettali ci day yomb waaw mais waruñu ci woon wax sax parce que wax ci teel na bés dina ñëw den ci wax mais pour wax la loolu rek dama ne ñi ko tëggal ñi ngi fi ñi ngi dund ñi ko seetaanoon ñi ngi fi man maa ko tëggoon maa ngi fi ñi ko seetaanoon muy doom Parcelles ak doom pikin keroog bi laay béy ànd ak Jinne ànd ak Jules xam nga gunge Ama mu ñëw ñoom ñëpp ñi ngi dund comprendre nga ñi ko seetaanoon ñi ngi dund comprendre ñëpp a ngi fi wax ci day teel waaw non comme ni ñu convoqué Mbapat rek dem joxe ay avance mbër yi war a bëre ñu bëre ba ñoom mooy grand combat bi grand combat bi balaa ñu julli timis dañ koy siffler buñ ko siffler ñëpp julli jigee comme Mbapat yëpp si àdduna la du Mbapat boo xam ne da ngay teg dara ñuy bëre di bëre ba ay final déedéet Mbapat nomination la dañu nome ay mbër ñu nommé leen waaw parce que boobu Modou moom daanaka dafa ub ndakaaru comprendre nga bëreeg ñëpp daan leen mbër moo seeti mu ne la kii na daan na ma sama buntu kër kii na ma bi may daan sama yaay ngi toog kii na ma bi may daan samay jigéen a ngi toog comprendre du ma bëreek moom Jules Balde suma xarit la nit ku baax la maa ngi koy nuyu de passage moo ma woo ma ne ko dama tëgg làmb mu ne ma kañ ma ne ko sama jour anniversaire j'ai l'habitude de le faire mais Modou Lo quatre mois jox naa ko avance amul adversaire mu ne ma non Modou Lo moo ma ne eh Mouzem bul ñu fontoo indil avance bi Ama bëre ko parce que Ama munul toj Pikine te du génn bëre ji ñëwal mu jël avance bi bëre ji noonu la demee ma dem Jules waaw ah non cachet bi moom munul graawul yooyu moom waaw passé na kay mais loolu graaw soo demee boo leen laajee ñaata leen fe ñoom nañ ko xam mais ñun ay mag la ñu am na loo xam ne duñ si dugg détail la quoi du problème xaalis mais problème mu bëre la dama déggoo li ma dama ne mbappatu nomination la du ndab mbappatu dañuy teg donc dañuy commencé mbab làmb ji 4 heures li commencé bëre balaa ñuy julli timis combat yëpp jeex na ñëpp julli ji gee seen kër kenn nekkul ci làmb ji 12 combat la woon ah non avant timis sifflé nañu combat bi waaw mu jeex ñëpp dem ñibbi waaye man mi ko tëngaam ndax seetaan na làmb yow lan moo la dal. waaw dañu léewtoo rek dañu daw arbitre xaw ma Ousa moo doon arbitre xaw ma Eumeu seen ñoom ñaar am na ku ci doon arbitre grand combat bi parce que drapeau monsieur le maire la maire Moussa si lañ ko tuddee woon ak Mbaye Ndiaye donc voilà dañu siffler rek seen ñaari loxo bi ñu laalantee la gars yi kenn ku nekk xam fi nga féete ma doon da ko fiile rek daw wër ko ndombo daal di toog ci loos wi rek daal di sulli ñaari loxo yi mu ama julli gars yi dem ñibbi mu jeex to ah sa jëbu laalee suuf julli woo ku waaw tombek ñuy noddi gee ku ne dem noonu de la combat bi demee su ma juumul en ah, demba waaw loolu dafa leer ah yaa ngi noonu de waaw laa fekkee de bu fekkee juumuma ci sama ndoxtu waaw ah. ama waaw lu mu wax mu ne waaw non li ma wax dama ne Modou ku koy yeb rek wala ngay du mbër mu ñuy wàññi mbër mu ñuy natt di ko wàññi naan nii laa koy def nii du mbër mu ñuy appal temps du mbër mu ñuy wàññi booy ñëw ci làmb parce que dégg nga wax ji du mbër mu ñuy natt wala naan dama koy appal temps wala nii laay moom déedéet dumbar mu doomu aadama di wàññi kenn mënu ko wàññi ci làmb yàlla xam na ko wallaay il est différent du parcelle la dëkk du suma rakk la du nii non non mbër mu différent la yàlla moo ko jagleel loolu Modou Lo ku xam Modou démb démb gis ko muy bëre xam ne Modou Lo il est né champion Modou Lo il est né champion waaw mais Modou kenn dootu ko conseil si làmb kat pour demal bëree nii wala nii ngay bëree noo déedéet non ku bëri yow tamit ku bëreeg ndey njéeme ñoom aatu ñoom ñëpp nga bëreek ñoom kenn ku ne nga am ak saan ngay bëreeg as ama bal de nga ne da nga koy looy conseil Modou Lo yow jinne ji ngay wax nga ne da nga koy conseil non looy conseil Modou Lo non ke Modou nag déggoo lu ma la dama xanaa wax ji leeru dama ne la mbër mu différent la mbër mu différent la kii coacham xam na li may wax bu baax parce que xam na ko moo ko yar mais ay ndoxtoom laa la wax du mbër mu ñuy wàññi Pambay mii euh, international la def lutte gréco-romaine ak ay ànd ñoom tubaabu joor sur le plan international kenn munu ko nax ci ndoxtu làmb mais moom xam na ne Modou Lo mbër mu différent la du mbër mu ñuy natt du ku ñuy wàññi ci bëre. ak ñan ak ñan lay bëreel mu gaa mu yéex. waaw mais dama ne Modou xanaa yow tam déggoo dama ne Modou Lo mu différent la kon war nga xam ne ñi Ama Baldé kenn du ci Modou Lo Modou Lo du ñoom déggoo ma de man dama man man man man man man man kenn ñoruma ci mbër nu mbër toll dama lay wax noo mel ma wax la mais xale boobu dafa différent de <laughs> Modou Lo doomi Ngoné Diop ji daa différent de bokk la gone yi de yàlla xam na ko <laughs> lu leer laa wax ah dara fuuf junni yoon moo ko mën yàlla xam na ko je mooy wax de ju fu bokkul sax non eh non Bayern la de leer laa wax du <laughs> jaaxaan ba mu ah ba mu toogal boppam nga xam ma ay eh, luy Bayern Paris <laughs> waaye yow do <laughs> déggoo li ma la Bayern Paris la y a làmb demb seetaan nañ ko lambi tey te ñaan nañ yàlla fekke suba de ci yàlla yóbboog jàmm <laughs> li lay wax ni moo toogee Pikine dama koy wax <laughs> waaw waaw non yow tamit non déggoo li la wax yow tamit <laughs> ah waaw waaw waaw waaw oho xam nga Pape wax na la sànq ñun bu ñu waxee aussi loolu ngeen di wax ay parcelles ngeen dëkk ay nii no du loolu nee naa la sam wax dañoo seetaan lamb dem seetaan bu tey bëgg seetaan suba waaw kon lamb jaaxaluñu déedéet waaw Modou Lo kuy jiix jiix làmbam wala di xalaat làmbam sax peut-être sax waa parcelle la neex nii sax waaw mais ñun bu ñu neexee waa yow yow tamit. sama waa ji bul ñu wax loo waay dafa teel de wax jotagul de non wax jotagul waaw ñoom nañu wax wax lañ toll ku mënul dara da ngay wax barki yonent bi kenn du waa jooju éé eh, eh, sëñ bi <laughs> non <laughs> waaw kay dégg naa li wax ah waa mais man maa ngi tax jour combat maa ngi taxaw seetaan naa ko boobu maa ngi taxaw benn grand bu ñuy wax dazu effectivement dañoo song rek mu loo fàq mu dem kat mu dem mu ràcc mu mu rëpp mu loo daw wër ko daal koy croisé fël loxo yi mu jul mu së mu kii ah waaw xam xam nañ ci boole ay teggin nag quand même ndax euh, ñoom ay champion lañu te lamb aussi dafa laaj respect mais nañ nangu gis nga loolu du ci dara mbër mën nga ko daan mbapat loolu du ci dara mbapat moom école de lutte la mbëri dañuy daje foofu di daanante benn yoon boobu lañ bëri yàlla may na Modou Lo ndam quoi mais nañ ci rafet moo gën su ko defee bu ñaareel bi bu ñaareelu jël bi ñëwee mën a rafet bu ñaareelu jël bi ñëwee mën a rafet waaw non dama ne ah tamit mais 2-0 lay doon waaw Jules da daa nelaw Jules da nelawatul dégg naa nag dégg naa ne mi mi ngi laaj sama avance man mais man avance bi. <laughs> non xam nga kooku benn benn benn benn benn benn benn verdict moo fay am su ma bëree ak moom su ma daanee mi ngi wan ni Modou Lo di daane Ama Baldé su ma ko daanee maa ngi wan ni Modou Lo di daane Ama Baldé xam nga li ma wax combat boobu sama combat ak noon noonu lay demee maa moom suñu songoo su fekkee ne man maa ko daan dinaa wan amateur nan la Modou Lo daane amaa bale su dee moom moo ma daan moom mi ngi amateur ni Modou Lo di daane Ama Baldé moo tax jaru ko jaru ko ah day feeñal day feeñal comme day feeñal bi avant combat bi loolu laay bañ non nga wala déggoo ma ma Jules suñu bëree maa moom su ma ko daanee maa ngi wan amateur nan la Modou Lo di daane moom su ma daanee moom mi ngi wan amateur nan la Modou Lô di daane Ama Baldé mais kon nañ ko bàyyi ba combat bi rek waaw Tafatine Boy Niang à ah, combat la de bokkuñu avantage nag parce que Tafatine calibre la ak rallonge bi Boy Niang aussi foog mu gën a liggéeyaat lu raw li mu liggéeyoon contre Lac waaw foog mu liggéeyaat lu raw li mu liggéeyoon ak parce que Tafatine xëy na am na tuuti retard ci làmb mais champion la te bu liggéeyee yëpp day naqaree daan boo Niang it champion la boo xam ne ni. bon yaakaar naa ne contre Lac de dina ko servir beaucoup de leçons pour mu gën a yokkaat liggéey bi waaw. waay waay waaw loolu laa gis loolu la ma sama xalaat may quoi ah xeex bi du xeex bi parce que Tapha Tine xam nga bu nit ko bu sutee ba pare nekk xeex xeexkat day jafe xeexal donc il fallait que nga jéem nga jéem a bëri moom ci xel am stratégie parce que tafaatin aussi mbër mu mës a xeex ak moom fajjo nga ba sonn de. waaw mbër mu mës a xeex ak moom dafa ba sonn waaw moo waaw kontaan ci di ñaan làmb ji yàlla def fi jàmm di ñaan aussi mbas mi fi nekk yàlla jëlee ko feek jàmm ba ñëpp desuwaat seen sago yàlla def ñu nga xam ne ni jot nañ cee jot ñu wér ak jàmm ñi nga xam ne ni dëdd nañu yàlla jéggal te yërëm leen te woyof ci seen kaw tàbbal leen àjjana di ñaan màggal gi ñu jëm di màggal ko Sëriñ Tuubaa gi ñu dem ci ci jàmm ñëw ci jàmm te yàlla yokku xéewali di ñaan mu taxa Mbacké mu yàgg fi te wér lool lool lool na fi yàgg cent mille ans na ko fi am waaw yàlla na fi yàgg te wér ci barke Sëñ Touba ak njabootu Sëñ Touba gépp di nuyu Zem Kane di nuyu sama gars yi waa grand place bi vraiment ñoom Xaadim Mbuub waaw Cheikh Ahmad Bamba laa toogal ñoom Youssou gaa yëpp vraiment Youssoufa. ñun fi la ñu fekk si stade bi lañ ko tegee woon mais ma lay wax ni combat boobu xam nga dañ doon wax ni Ama jour la woon. mais boobu Modou xale la duggagul woon sax si làmb waaw gannaaw bi tëgg ko waaw yaakaar naa bi ñu sifflé rek Modou da koo sànni rek daw wër ko nomba fii la ko dugal jël tànk yi ama sukku Modou di ko di ko puus nii ñëpp ngi seetaan di ko puus di ko puus ak ay mbagam ba ama sukku kon gars yi ñoom bu ñuy wax loolu bon mooy li grand pape wax rek mhm. ñoom peut-être Pikine nañ dëkk dañuy wax rek waaw mais Modou Lo ama moom bis bu bis bu arbitre ne prip ama dina xamante ni Modou du moroomam de moo ko mën fuuf moo ko dàq bëre moo ko ëpp fit ëpp ko doole tamit teg ci waaw comme li grand bi wax rek de ah, waaw waaw mais Tim Timol mii tamit dama bëgg gars yi utal ko combat.